tey dama am euh, mbégte ñëw fii ci école élémentaire euh, euh, Serigne Assane Fall ànd ak médecin chef de région ànd ak IF Thiès Ville Arfan Seck ànd aussi ak délégation inspection médicale le CAOS les journalistes bàyyiwuma kenn le dialogue sociale le doyen Diouf ñëw fii fekkee li ñuy wax leçon de vie maanaam leçon boo xam ne euh, jàngalekat bi daf ko togg pour fexe ba xale yi xam lan mooy coronavirus. coronavirus nag nekk feebar bu bees boo xam ne dafa xew ci jamono xew ci àdduna euh, commencé fee ca Chine euh, ba tey gis nga li muy def ci réew yu mel ni Italie suñu réew nag ñu ciy sant suñu borom suñu président de la République Macky Sall à travers son gouvernement. di organiser li ñuy wax xeex maanaam riposte ci tubaab xeex coronavirus tàmbali nañ ko sax avant muy yegg si suñu réew euh, ñu teg dispositif boo xam ne ministère la santé ñoo ci ànd ak ministère de l'éducation nationale ak tous les services techniques euh, insister ci euh, sensibilisation communication maanaam waxtaan ak nit ñi pour ñu xam lan mooy feebar bi ñu ni nag fii ci cees ñun tamit dañuy war a ànd ci ak médecin chef de région ànd ci ak ñëpp ñi nga xam ne euh, ñoom ñooy yëngatu ci wàllu école pour dem ci école yi waxtaan ak xale yi euh, jàngalekat yi def ay leçons euh, ci coronavirus bu ko defee xale yi xam naka lay coronavirus naka lañ koy amee naka aussi ngay fexe ba xam nga ba xam ne yow du ñëw ci yow loolu surtout ñu insister ci loolu waaye tamit fexe ba nga xam ne mu am dal ci réew mi am dal ci école yi xale yi xam ne mbirum suñu borom la euh, donc mais li ñu war a def rek mooy fexe ba nga xam ne daal mu génn suñu réew mu génn suñu réew euh, loolu nag ñu ànd ceeg jàngalekat yëpp ma leen di remercier euh, instant bi may wax ak yéen nii ci école yëpp ci classe yëpp doore ko ci préscolaire ba ci secondaire dañuy dérouler li ñuy wax leçon de vie ci coronavirus pour xale yi xam lan mooy feebar bi ak naka la ñuy mën a moytoo loolu waaw message bi jàll na parce que boo xoolee sànq jàngalekat bi bi mu paree def na li ñuy wax ci ci tubaab évaluation maanaam natt xale yi li mu leen jàngal fan lañ ci toll waaye boo xoolee question yi mu leen posé euh, n'est-ce pas réponse yi ñu joxe dangay xam ne kon xale yi tey jii waxuma la sax ñoom ci seen bopp xam nañ lan mooy coronavirus waaye tey bu ñibbee seen kër ci boolu añ ba ak feneen dinañ waxtaan ak seen parents yi waxtaan ak ñëpp képp koo xam ne rek euh, xamuloo woon luy coronavirus normalement yaakaar naa ne xale yi bu ñu génnee tey ba wasaareew ci biir région Thiès kenn ku nekk di nga war a xam lan mooy coronavirus di nga xam aussi naka ngay fexee ba moytu ko. gërëm IA bu Thiès ak IEF euh, ak école Assane Fall fi ñu ñëw fii parce que ministère la sante et de sociale ministre la santé et de l' action sociale Abdoulaye Diouf Sarr daf ñoo xool bi bi ñuy waaj bi. Euh, bi ma feebar bi avant muy dugg fii ne nañu def sensibilisation lëkkalook yeneen ministères yi ministère de l' éducation nationale ministère du tourisme ministère maanaam ministère yëpp ñu njëkkee ko fii ak ministère éducation nationale ñu ànd ak IA ñëw fii ci benn école pour jàngal élèves yi ni ñuy def ba mën a moytandiku feebaru coronavirus parce que feebaru coronavirus lu tax muy law ñàkk a ci lay bokk muy propreté ñu ñëwoon fii nag ci leçon de vie bu élèves yu euh, bu ñu defee ak yi pour ñu d'abord xamal leen feebar bi nan lay manifesté woo ak nan lañ koy prévenir nan lañ koy moytoo ñu koy moytoo nag mooy maanaam raxas say loxo muy di ba mu set ah bañ a loxo joxe loxo fu ñu nekk wala biis bi loolu daf koy joxe mais ñuy ñaan yàlla di di mu feebar bi bañ fee ñëw ba mu fi ñuy ba ba feebar bi commencé ba léegi Sénégal ñeenti cas la amagum ñeenti cas yooyu sax du ñoo xam ne fii lañ ko Sénégal la jóge mais ay nit ñu jóge bitim réew indi ko fi la parce que bitim réew xam ngeen ne feebar bi am na pays yoo xam ne sonal leen sonal na leen muy Chine di Italie Italie tey euh, coronavirus bi sonal leen ci loolu nag ñu waxoon ne ñun ñun système de santé bi nañu préparé wu loolu tax système euh, part kii yi agent de santé yi forme nañ leen ñu nekk ci hôpital yi ñu nekk ci euh, district médecin chef de district yi danañ commencé léegi léegi ñu commencé former infirmier chef de poste loolu na mooy lan pour que fu feebar bi mën a duggee ñu mën ko détecter ba pare prélever ko seet ndax moom la ak du moom léegi nag ñu ñu ñu ñu appuyé wu ci communauté bi muy ministère secteur yi yeen nekk ci région bi ak organisation communautaire de base yi pour que ñu aussi dimbali ñu ci sensibilisation bi loolu yàlla may nañu ci ci ndam parce que fi ñuy wax ak yéen ba léegi ñeenti cas yu jógee yi ji diagnostic yi ñu ci diagnostiqué Sénégal yëpp ay cas importe lañu maanaam ci yeneen dëkk lañ ñëw indi ko fii waaye nag ñu ci diagnostiqué fexe nañ ba feebar bi law loolu aussi mooy suñu loo xam ne suñu victoire la parce que mënoon bu ñu nekkoon dañ leen defuñ meen mesure de prévention peut-être même feebar kon feebar maa ngi ci biir dëkk bi di wër mais ci ñeent yooyu la yem dañuy ñaan mu yàgg donc vraiment di gërëm ñëpp ñëpp jàpp ci foog naa bu ñu defee nii même bu fu dëggee sax duñu sonal. Thiès na juróom benn cas suspect. bien sûr Thiès bi feebar bi commencé ba léegi am na juróom benn cas suspect ñoo xam ne dañ leen teste négatif. ñaari mbuur la ñu jógee ñeent yi nekkoon fii Thiès bi ñu ko amee nag euh, dem nañ prélever leen yóbbu leen Pasteur Pasteur euh, examiner leen waaye amuñ doomu jàngoro ji donc dañoo négatif ñuy. continuer ñu wax ñu wax agent santé ñu continuer di xool képp koo xam ne gis nañ ko mu suspect dans la même jour de dañu la prélever yóbbu prélèvement yi te résultat yi nañ gën la même jour te bu ñu ko defee aussi même bu ñu defee prélevé bu ñu gisee benn cas képp koo xam ne nekkoon na contact moom dañ commencé liggéey moom pour mën mën ko prévenir ba ñu am ba feebar bi. rafetlu d' abord euh, euh, daje bi ñu daje fii ci l' bi di sant bu baax a baax a baax monsieur Diassé ak monsieur Seck. ñun ñi nga xam ne ñooy wéyjur dénk leen suñuy doom donc ñun juumuñu état bi juumul bi mu jëlee jëmm yii dénk leen njàng bi fii au niveau de cees mais également juumul bi mu jëlee le docteur Ndiaye jël santé bi dénk ko ko ñoomu ñu ngi ciy warlu àq li ci war ñu ngi koy def ñun nag wéyjur ah, ñu ngi leen di sant bu baax li ñu dégg fii daal gis ko rafet nañ nu njortu ni feebar bi ci diir bu gàtt ragal naa ni bu doon bu doon bu doon xar la dinañ ko tër rendi ko ragal naa ni xuma fan lay def ay mal wante du fii parce que lii ma gis fii day ak li ma dégg fan yi ci rajo bi ci sunu borom xam-xam yi ñi nga xam ni dañoo jàng ba xarañ ci mbiru sante nga xam ni euh, euh, faale wuñu ci fànn boobu euh, nasaraan yi xam nga bu ñu demee ba réew mi nga xam ni sax fa la jógee muy Chine ñooñu di yëkkati seen kàddu di rafetlu liggéey boo xam ni euh, kawe na njort loo xam ni sunu médecins yi ak sunu professeurs yi def nañ ko ah en tout cas ñun wéyjur lay dañ ciy dañ ciy sant. man nag jaloog social lii dafa bokk ci sama mission fexe ba jàmm am ci école jàmm am ci école nag bokk na xale yi ñu am wér gu yaram. ñu sant yàlla am mbégte eh, teew fi tey ànd ak kilifa yi. di jëmmal li nga xamante ne dañ ko santoon jàngalekatu Thiès waxoon na leen tey bu juróom-ñeenti waxtu jotee nañu taxaw classe yëpp waxtaanee mbirum coronavirus ngir dalal xel yi mais ngir également wax leen ne cet rek moo am solo bu ñu jëfandikoo saabu ak loo xam ne day setal dinañu aar fanqal ñu musiba boobu yàlla na ko yàlla def ñu ñëwoon tey fii ci école Serigne Assane Fall euh, nga xam ne dañ fi am classe transitoire moo xam ne ay waay laag xale yoo xam ne ñoom seen bët dafa seen gis dafa des ñu ñëw nekkoon ak ñoom euh, jox leen kit d'hygiène di wax na ci lañ bokk parce que li ñuy dund actuellement mooy éducation inclusive di daanal di ñaan yàlla na yàlla def jàmm yàlla def feebar bi yem fi di xalaat sunu mbokk yi nga xamante ne ñu ngi ci diaspora bi euh, ñoom également ñu ngi leen di ñaanal xëy na jaaxle nañ waaye yàlla baax na yàlla nañu yàlla jàppale ba feebar bi yem fi Depuis quelque temps, le nouveau coronavirus, appelé Covid-19, euh, sévit à travers le monde. Euh, c'est pourquoi Son Excellence, Monsieur Président Macky Sall, euh, à travers son gouvernement, mais surtout à travers le ministère la Santé, de sociale et le ministère nationale, organise la riposte contre le coronavirus, qui est une maladie mortelle. C'est pourquoi, euh, après avoir lancé des leçons de vie au niveau de la région de Dakar, nous avons pensé en tant qu'inspecteur d'académie de Thiès qu'il nous fallait également, en relation avec le médecin-chef de région, euh, nous organiser pour élaborer un plan d'action euh, en vue véritablement de sensibiliser, de communiquer mais surtout d'apaiser, euh, de créer un climat de sérénité dans l'espace scolaire. Vous savez très bien que les élèves constituent des vecteurs de communication. C'est pourquoi nous avons pensé, à travers ce plan d'action, organiser des leçons de vie partout dans la région et dans toutes les écoles du préscolaire au niveau du secondaire, avec tous les contenus qui sont mis à disposition euh, pour les enseignants pour que eux-mêmes adaptent, n'est-ce pas, les contenus au niveau des, des, des classes. Et aujourd'hui, nous avons assisté à une leçon de vue euh, ici à l'école élémentaire Hassan euh, Fall. Euh, donc, euh, nous avons eu droit à une leçon présentée par un enseignant dans une classe de, de CM1. Euh, l'enseignant a insisté véritablement sur les manifestations de la maladie, mais surtout sur les mesures pré préventives. euh, qui nous protège de, de cette maladie. Heureusement également qu'au niveau du Sénégal, il y a eu très peu de cas et euh, même dans ces cas-là, il y a un qui a été euh, soigné, ce qui nous donne l'espoir que véritablement notre pays est dans la bonne euh, dynamique pour aller dans le sens de la riposte et éviter que le coronavirus, n'est-ce pas, ne fasse des dégâts dans notre, dans notre pays. Je voudrais remercier le médecin-chef euh, de région qui nous a accompagnés euh, dans ce plan d'action, euh, mais surtout les inspecteurs de l'éducation et de la formation qui, en relation avec les, les enseignants, mettent en œuvre cette leçon de vie et globalement le plan d'action que nous avons élaboré pour riposter contre, contre cette maladie. Remercier également... Oui, vous avez vu dans la salle euh, avec la participation des élèves, euh, véritablement le message est passé. Et au moment où je vous parle, euh, dans toute l'inspection de l'éducation et de la formation de Thiès-Ville et dans toutes les IF, véritablement jusqu'au vendredi, des leçons de vie seront organisées dans les salles de classe du préscolaire jusqu'au secondaire pour permettre aux enfants de connaître le coronavirus, comment il se manifeste comment également euh, ils peuvent se euh, prévenir en tout cas euh, le coronavirus à travers le lavage des, des mains, n'est-ce pas, et d'autres mesures préventives que nous avons mis dans, dans les dans les contenus. Euh, et comme j'ai dit, les enfants, c'est des vecteurs de communication, c'est des, ils peuvent passer le message dans les familles, n'est-ce pas, partout. Euh, vous regardez le, le nombre d'élèves que nous avons au niveau de l'académie de, de Thiès. si tous les élèves sont sensibilisés, si à leur tour eux-mêmes sensibilisent les communautés, ça veut dire que donc les gens sont informés du coronavirus et des mesures, surtout des mesures préventives.